mu mel ne ñu ngi ak sunu mbokk yi nga xamante ni euh, waa Touba Vision waa Touba TV ñëpp euh, presse sénégalaise bi presse yoonu murit euh, amuñu xaaj amuñu seen saa su nekk rek ñu ngi bokk liggéey bi di ko defandoo ci gën gaa rafetane anam li sëñ Muntaxa woote nag moo tax loolu li sëñ Muntaxa woote da ko tàmbale woon ci bisu xasida ba tàmbale ko ci bisu sikuru laa ba tàmbale ko dajale isbu tarxiya tàmbale ko ci tàmbale yu am solo yooyu moo tax daanaka yoonu murit gépp dañoo bokk jaxasoo ànd di def lépp muy benn ñuy doon laaj rek jëriñ ginnaaw bañ la nuyoo la waale mbo mbokk yi ñu seetaan rek ñu gën a ràññeekuwaat baax waaye yow xam naa ne du ko doo ko ñuy présenté euh, ni ni Serigne Bass euh, daal di yëf yi nga xam ne dafa bokk ci li nga xam ne moom lañ naan gestion du temps maanaam sàmmonteeg waxtu ba nga xam ne tardement du am fii ak julli tey tey du am kii wax kii sànni ki sant ki gërëm nga xam ne daanaka autorité yi dañuy ñëw rek euh, mu daal di mel ne loo xam ne dañ koo waajal dañuy def li ñu war a def rek ku nekk daal di tàggoo ana noo ngi lay sant di la gërëm di nuyu mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñu bàyyi xel di loolu boo ko gisee mooy euh, ni ko sëriñ Basir waxee Daaru Muxti dëkkub jàngale waa kon la kon dañuy jàngale naka la ñuy sakkanale temps comme sëriñ baa ngi ñëw waxtu comme sëriñ baa ngi ñëw te magum juróom-ñeent fukki at nga bëgg koo téye ay waxtu yu bari moo tax comme presse baa ngi fi dañuy jàllale li ñu war a jàllale lépp bu sëriñ bi yegsee kàddu njiitu réew mi kàddu sëriñ bi ñu mën a ñu mën a jeexal noo ngi leen sant ci taxawaay bi euh, maa ngi wuyoo ci turu Moustapha Guèye bokk ci cellule de communication bi ànd koog Serigne Aboum Serigne Bassirou Anta Niang liggéey bi nag ni ko bëggee woon lépp mën na maa wax ne Serigne bi defalee nañu ko noonu kon noo ngi sant mboole presse bi yëpp ci taxawaay bu rafet bi ñu taxaw waaye di sant nag PDG Mouhamed Nazirou Samb jëmm la joo xam ni communication kenn ku ne xam nañ dafa seer ci jamono ji lépp moo ko def millions yi bari lépp la débloqué teg ci taabal ji nit ñu télévision bu ne ci réew mi na ngeen fa def plateau na ñëw couvrir màggal kon loolu jàpp naa ni buñ ci yegsee ak it ak ak rafetal ndax boo seetloo sax micro bi daanaka gisoo mu am logo ndax ñi ngi ko bokk ak académie bi nam Rafah TV Istikhama Touba Vision Ndindi ak ci ñëpp rek euh, télévision yi nga xam ne dañoo bokk ci yoonu murid ñëpp dañoo bokk def benn jumla ngir doon def liggéeyu borom daaru bi mu doon benn moo tax ñëpp rek bokk même image boo xamante ni moom la ñuy partagé euh, ba ci ba ci ba ci académie mi nam nga ci kër sëñ Mountakha Rafah TV ñëpp bàyyiwuñ kenn ñëpp ci lañ bokk ak Bichri TV télé murid yi rek ñoom ñëpp ñoo noo euh, wax nañ njëgg ku xëyal Serigne tubaa war a gontul maam Thierno Birahim te nañuy def màggalu Touba noonu ngeen def màggalu daaru kon nag noo ngi leen di sant di leen gërëm di wax ni Serigne bi dafa woote liggéey boo xam ni woo ci murid yëpp sàkk na ay yoon yoo xam ne ku ci bëgg a barkeelu ci ngay barkeeloo numéro bi la 592 01 mu jël liggéey bi teg ko ci loxob Serigne Abdou Samad imaamu Daaru Mooti di ku baax di koo xam ne taalibe gi ak bëgg sëñ Tuubaa gi foog takk weesu na ko waaye nag liggéey bi mu dénk ko Mouhamed Nazirou Samb Mouhamed Nazirou Samb ci dëkk bi la juddoo màggee fi jàngee fi génn créer société ba tey boo dee tudd société yi gën a mag ci réew mi wala Afrique di ci boole Africa Bloom. daa mel ne nag euh, Daaru moom dafa am ay produits boppam yoo xam ne moo leen génne ku ci mel ne moo lu Diagne Fada moom jaar na fi sànq waaye dafa ñëw ah, maam nee na ma su ma sañoon bu ma amee yére bu rafet bu bees Daaru laa koy njëkk sole loolu loolu day wane ni rek borom Daaru Muxti waaye du ñëwee waaye keneen boo fekkee waaye borom Daaru Muxti ca fa gën a sori ci àdduna bi boo laabee xol bi daaru nga ciy fekk. lu mu am daaru la koy indi kon ñoom itam noonu lañ mën a doxee mooy noonu ma la ko waxee euh, ndaw loo xam ni fanweeri lay doo am mbaa la mu teg bëriwul bi sëriñ bi wootee liggéey bi fa sëriñ ba toog wax ko 200 millions la yëkkati teg ci taabal ji ni maa ko tàmbalee sëriñ bi jox ko liggéey bi mu ni li may yor lépp bu ci doon yem danaa yeggale liggéey boobu sëriñ bi joxe 40 millions ma ne ko juróomi xalifa yi borom daaru yi. kenn ku ci ne joxe waaleel nga ko 40 millions 40 boo ko multiplier par 5 mooy 200 millions kon loolu day wane ni maam Thierno yàlla nangu na liggéeyam yéen itam euh, taxawaay ba am solo ngeen am noo ngi leen di sant sëñ Xaadim Seck Mourtalla Rafah TV ak mboolem ñi nga xam ni ñoo booloo nekk ci liggéey bi ci turu Serigne Abo moom Serigne Bassirou Anta Niang du ñàkk nag xam naa ni ñu laaj lenn rek ci Serigne Bassirou Anta Niang ndax daa nekk ku bëgg xam-xam di borom xam-xam waaye roy ci borom daaru ndax borom daaru xam-xam a tax xam-xam la ko sëriñ bi nawee ak yar ba nangu koo dénk njabootam sëriñ bas màggal gi jub si mu jox nit ñi sëri ca mbaa yóbbal bind ab téere teel koo génne laata am màggal gi ba def ci ba def ci bis bu am solo mu mel ne eh, fonk gum fokkoon xam-xam wane na lu baree baree bari ci loolu waaye beneen bi di eh, sëriñ Bassirou Anta Niang ak liggéey bii mu mel ne liggéey bi fekkoon na fi mag ñu bari ku ci nekk amoon yéene eh, ci sa diggante ak borom daaru waaye moom bi mu dikkee rek euh, daanaka daf ko def defin woo xamante ni euh, defin wu am solo la mu nekk kon ay naali sëriñ Basiru Anta Ñang mooy bi ci jëm seen bi rek bu njëkk bi di di sëñ Basiru ak xam waaye sëñ Basiru Anta Ñang ak diggal gi mu diggal magam yi ba mën a magam yi fi ñu tegoon seen tànk mu mën faa tegaat tànkam ba ba ba ba ni mu tàmbalee liggéey bi nekk tàmbali am solo. loolu loolu loolu dafay lu am solo gis nga sang bi sëñ Basiru réew mii ñu nekk dañ ko dañ ko war a xam. jëm la joo xam ni way juram waxuma ñëwaguma ci borom daaru way juram soxna Anta Ñang la tudd sëñ Alamine Ñang ko jur bokk ci seexi sëñ Tuubaa yi 1921 fa mu toog peste bi ñëw feebaru peste bi dafa wax ne du ma fa jóge tawuma ndigalu Serigne Touba du ma fa jóge tawuma ndigalu Serigne Touba foofa la nekk ba faatu ñu jël njaboot gi yóbbul Serigne Touba njaareem Serigne Touba jël soxna Anta Ñang jox ko soxna Fat Sila Libaas mi waajib soxna moomi Xaadim ba mu ko ko joxee ñu màgg mu jël njaboot gi indi maam Thierno Birahim ci la maam Thierno am sëñ Basiru mi sëñ Basiru bi muy jàng borom daaru dafa wax ni Mouhamadou Basir lu mën a xew na jàng ndax dama am ci moom yaakaar Mouhamadou Basir boo sàkkoo xam-xam ba ko loo bëgg danaa ko def jëmm la joo xam ni ba muy bind téere ci borom daaru ñaar fukk ak benn la am. tàmbale ko ci téere bi. déedéet ñaar fukk ak benn ci la tàmbale bind ci Thierno Birahim loolu secret bi jàpp mooy boo demee Touba mi nanu baaxil xaddim ku ko bind Cheikh Mamadou Bassir boo ñëwee daaru kan moo bind téere ci borom daaru Cheikh Mamadou Bassir te sëñ Tuubaa da doon ceerno sancalab dëkk mooy laaxar wa loolu mooy laaxar wa sancalab dëkk lu la fa fekkul dama ko amut mu tàmbali jumaa ji nag Cheikh euh, Serigne Moura Balla ko tàmbali woon 1966 ba Cheikh Khady yeesal ko 2006 moom mu ñëw def ñetti milliards fa seen ko ànd ak taalibe yëpp kon loolu noo ngi leen ciy sant di leen ci gërëm fa seen i ci ànd ak taalibe yëpp rek fa seen i tàgg ak taalibe yëpp dégg am eh, diggante Serigne Bassirou Anta ak borom daaru waaye ak waajuram nga xam ne fa la dooree eh, laataa muy agsi ci borom daaru waaye di ay kàddu yoo xam ne eh, génn na ko ci Serigne Mouhamadou Nazir ci liggéey bu am solo bi nga xam ne def na ko ci liggéeyal borom daaru Muxti bi ñu di ko ñaanal rek suñu borom yokk ay xéewalam donte xamuñu ko waaye ñun ku def lu baax buñ la gisee buñ la gisul xam nañ la bëgg nañ la sopp nañ la tey foo nekk rek danañ ko faax incha allahu taala ñoo koy sant bu baax te di ko gërëm euh, mu nekkoon loo xamante ne nii rek mooy ubbite gi euh, ba tey rek ñuy xaarandi autorité yi nga xamante ne nii euh, ñoo war a ñëw ci bis bi.